لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة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 ñu siwaat kon ci sun juróomeelu jataay gannaaw buñ dégloo nas bi nga xam ne moom la ki doon jàng-jàng jàpp naa ne am na ci ñu yor ay téere yoo xam ne la fa nekk xaw naa wuuteeg lim doon jàng ndax da cee am téere boo xam ne eh, dafa tëb lu bare bare bare bari waaye nii mu ko jàngee daal xam leen ne noonu la tëdd ku ci sëpp nusxa dëppoog moom xamal ne noonu la téere bi dëppoo koo xam ne juyoo naag moom nag xamal ne sab téere am na lu ci manki al imaam al barbahaari rahimahullah nee na waalam rahimakallah waalam xamal rahimakallahu yal na la yàlla yërëm yow ndongali sàkku xam-xam wala yow mii yër téere bi yal la yàlla yërëm xamal lan anna diina xamal ne diine innama jaa min qibalillahi tabaraka wa taala innama bu ko arab jëfandikoo loolu la ñu tëdde xasra la mooy mbir moo xam ne fii dong la yam bu fekkee ne daf ne innama jaa min qibalillah kon lim lay wax mooy diine ci yàlla dong lay jóge loolu lay firi moo tax mu ne anna diina innama jaa min qibalillahi tabaraka wa taala xamal ne diine daal ci yàlla lay jóge jógewul ci keneen la nga cay déggee kon mooy diine waxyu la waxyu la wu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala ñëw ci ab yonentam moo wax yu alquran wàcc ko ci ab yonentam muy ab texte boo xam ne ay waxam la yàlla ci boppam moo ko wax waaye it moo wax yu sunna mu doon am njàngale sol ko ci dëndub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xam ko bu dee lu ñuy waxe mu waxe ko bu dee lu ñuy fas mu fas ko bu dee lu ñuy jëfe mu jëfe ko xadiis nag ay waxam waxi yonente bi sallallahu alayhi la waaye la muy wax ci boppam loola waxyu la moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonente boobu du wax ay neen du wax waxi bànneex in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax lu nekk waxyu la kon yàlla moo koy wax lu yàlla koy wax loo muy wax di ko def loo muy def moo tax bi abdullah ibn amr ibn al aas di def saa xëyee toog ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa yor xalimaam di bind lu yonent bi wax rek mu bind ba mu yàgg mu génn bis lenn ci saxaaba yi ñu ne ko yow lii ngay def nii ëpp na ndax dangay toog fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu wax nga bind ko te yonent bi nit la amaana mën nay kaf walla yu mel noonu nga dem bind ko di ko tasaare ci nit ñi te fekk moom jubluwul woon ñu tasaare ko lañ ko wax mu déglu ko ba mu jeex mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ba ñooñu ñépp toog mu jàmbat ko loolee ñi ko wax ñu ko ñii kët man damaa nekk fii di bind waaye nee nañ ma bul bind bu ma bindati li ngay wax lépp ndax li ngay wax ay kafa ngi ci ak yu demee noonu lu ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax dafa ne ko uktub bindal فوالذي نفسي بيدي بيده ما خرج من في إلا الحق waat naa ci yàlla mi yor sama bakkan ne sama gimiñ lu dul dëgg du ci génne kon lu la neex bindal kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu wax luñ mën a bind la lum wax luñ mën a tasaare la lu tax in huwa illa waxyun yuha loolu mooy tontu li mooy yàlla moo koy wax loo muy wax wax yu nag moom njuumte du ca nekk kon yàlla moo ko wax yu alquran moo ko wax yu sunna diine kon mooy li ñëw ci alquran ak sunna diine fa yàlla nag moo tax ñëw wax inna diina inda allahi islaam maanaam diine fa yàlla mooy li ñëw ci alquran ak sunna te mooy diine al islaam nit ñi nag mën nañoo créer seen bopp ay diine wut seen yu ñuy jaamu mën nañu def waaye loolu bokkul ak diine ja nekk fa yàlla ann diina innama jaa min qibali llahi tabaraka wa taala lam yuuda ala aqwaali wa aaraihim lam yuuda kenn tegu ko maanaam diine jëluñu ko teg ko ala aqwaali rijali ci waxi gaay wa aaraihim ak seeni xalaat waxi nit ñi ak seeni xalaat du loolu mooy diine diine mooy la tukkee fa yàlla nit ñi nag mën nañoo yor ay xalaat ak ay xel ci jéem a xam texte yooyu yi nga xam ne mooy jóge ci yàlla muy alquran wala muy sunna waaye ku ci fétal nag yor sa xelum kese di xelale di bind wala ngay xelale di wax mën nga ko tudde diine bu la neexee waaye bu juuyoog diine yàlla ji rekk rek duus doon diine bu juuyoog texte rek xamal ne du diine te xamal ne góor ñi muy ñi mu tudde ardijaal muy góori yàlla yi moo xam ay góor lañ wala ay jigéen waaye boroomi xam-xam ci diine ak fuñ mën a toll seeni xel ak seeni gis-gis du mës a nekk balance bu ñuy xamee dëgg ak caaxaan déedéet yàlla defu ko mu nekk balance boo xam suñ bëggee dëgg ci la ñuy dellu ndax suñ bëggee xam dëgg faaw dañuy dellu ci la al imam malik wax wala al imam ahmad wala imam abu xanifa wala al imam shafii wala sax ibnu taymiya wala keneen ndax ku bëgg xam dëgg foofa rekk ngay dem déedéet ñooña di ñu màgg lañ ñu liggéeyal lislaam lu bari lañ waaye du caagi ni seeni wax mooy nattukaayub lislaam nattukaayub lislaam mooy lan kitaabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa ku la raw ci dégg leen dégg alquran ak sunna raw la ci gëm la ca nekk raw la ci jëfe ko kooko moo la gën a jege ay waxam ak i jëfam gën a nuru balance waaye day fekk du ko doon nag moo tax imaam yooyu yi ma tudd ci ñi seeni wax gën a nuru lu ñu war a mën a natte sunna ci lañ bokk ba tax na ay matu salaf dañ daan wax naan doy na ci nga xam ne nit ki noonu noonub sunna la mu nekk noonub ahmad ibnu hanbal di ko ko natte waaye nag loola firiwul ne ahmad ibnu hanbal rahimahullahu taala day nekk maasuum mel ne yonent nga xam ne lu mu wax noona la déedéet nattukaay bi dul juum nattukaay bi dul juum mukk mooy alquran ak sunna beneen bu dul boobu la imaam malik waxoon rek kullun yuxasu min qawlihi wa yuraddu illa saaxiba hada alqabr kum doon ak loo màgg màgg màgg loo bëgg-bëgg yàlla loo am am imaan loo bari bari xam-xam say wax day am lu baree bari luñ cay jël waaye faw mu am nag loo xam ne diisu ko jël lu tax mooy dangaa juum foofa waaw ginnaaw nekkoo maasum da ngay juum soo juumee foofa nag loola des koy delloo ba mu des kenn nee na muy ka tëdd foofee mu joxeñ xabroom ba ba mu koy wax mu yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon nga xam ne mbir moom yi wax ju wax ju yaatu la joo xam ne bàyyiwul aba bakrin bàyyiwul omar bàyyiwul osman bàyyiwul ali illa saaxiba hada al qabr ba des kenn muy yonente bi salallahu alayhi wa ndax kooku rek moo am moo am in huwa illa waxyun yuuxa lu wax waxyu la lu wax yàllaa ko ko sax loolu keneen amu ko kon góor ñi jàmbaar yooyu luñ jàmbaare jàmbaare ci lislaam nekk ci ay imaam di digle lu baax di tari lu bon li ñuy bañ mooy nga dem ba àgg ci benn xeetu fanatisme boo xam ne danga nga naan lu jógewul ci imaam diw wala lu jógewul ci ngir diw ngir sàngam duma ko topp saa boo àggee foofa rek xamal ne ak réer tàmbali naa dikk kon diisul fanatisme ci góori yàlla yi waaye diisul fanatisme Oh, diisul am fanatisme itam ci seeni xalaat nee na wa ilmuhu ab xam-xamam moom diine inda allahi ma nga fa yàlla wa inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallam xam-xamub diine dëgg dëgg dëgg fa mu nekk mu mel ni géej goo xam ne ndoxum di ndoxum diine ci géej googee la nekk nee mooy fa yàlla akub yonentam lu ciy jóge nag di ball wala muy baawaan xamal na ci géej googee lay jóge yàlla akub yonentam kepp ñoo peeg diine xam lépp ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu aju ci diine ji xam na ko ndax boroomam xamal na ko ko moo tax bu mbir mi ajoo ci diine buñ la ci laajee dara man ngaa wax li saxaaba yi daan wax laaj la masala xamoo ko nga ne allahu wa rasuluhu aalam na ko Muaas ibn Jabal waxe woon ak ñeneen ak ñeneen allahu wa rasuluhu aalam yàllaa ko yonentam ñoo ko xam su amee masala moo xamul ci diine sañ nga ne yàllaa ko yonentam ñoo ko xam lu tax mooy yonent bi sallallahu alayhi xam na diine xam na léppam kon mën nañu wax loolu waaye kat bu ajoo ci mbir yi nga xam ne yàlla moo ko jagoo munoo ne allahu wa rasuluhu aalam ndax diw sàngam jóge na ca tukki ba ne allahu aalam bul dugal foofu yonent bi yonent bi xamul kooko jóge na ci tukki ba wala jógewu ci léeg-léeg nit ñi dañuy juum foofu bu dee mbirum diine neel allahu wa rasuluhu aalam amul benn jafe-jafe waaye bu dee mbir yu aju ci loo xam ne yàlla jagoo xam ko nag delloo ko yàlla bu ci dugal yonent bi ci loo xam ne du wàllam mu ne fala tattabi cheyan bi hawaaka fala tattabi bul topp cheyan dara bi hawaaka ci sa bànneex maanaam bul topp dara fekk la tax nga di ko topp mooy sa bànneexu bakkan soo ko defee fa tamruqa ngay fëll ngay génn min a ci diini ci fa taxruja ngay génn min islaam ci lislaam wattu la topp sa bànneex nga xam ne looy topp lu mu mën a doon sa bànneexu bakkan moo tax nga di ko topp même bu dee ci biir diine ji da ngay tànn yi nga xam ne moo dëppoog nanga ko bëggee nga di ko jëfe ya dëppoowut ak sa bànneex nga teg ko ci suuf wala nga nëbb ko déedéet bul mel noonu soo ko melee kooku toppatoo yàlla waaye bànneex ngay topp te loolu musiba la bànneex nekkul dalil bu ñuy jële diine bànneex luy réeralaate la moo tax mu ne fa innahu nekk lay mbir kët laa xujjata lakk bu dee bànneex ngay topp kon amatoo dalil bu dee bànneex ngay topp amatoo dalil booy topp ndax bànneex moom du dalil bànneex ku ko topp réer ku ko topp réer moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy wax ak yonent yàlla daawud daf ne ko yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi l ard man maa la def nga nekk ab xalifa ci kaw suuf faxkum bayna annaasi bilxaqi wala tattabici lhawa atteel dëgg waaye bul topp bànneex bul topp bànneex fa yudillaka an sabilillah bul topp bànneex mu lay réeral ba duutoo jaar ci yoonu yàlla wi borom bi mooy wax ak ab yonentam muy daawud booy àtte àtteel dëgg bul topp bànneex dalay réeral ba duutoo xam yoonu yàlla teg ce ni inna alladina yadilluuna an sabilillahi lahum adabun shadid bima nasu yowma alxisaab ñi nga xam ne dañuy topp seen bànneex nee na mbugal mu tar moo leen di xaar lu tax mu ne ndaxte ñooña dañoo fàtte bis bay ñëw ca kanam mu yowmal xisaab bis boo xam ne kenn ku nekk dañuy réglenteeg yow say pas-pas ak say jëf ak say wax yépp jigéen ko teg ko ci balance yi kon li ngay déggee ci tegsam bi fala tattabic cheyan bi hawaaka fa tamruqa min addiini fa taxruja min alislaami fa innahu la xujjata moo di képp koo xam ne dafa jël bànnee xam def ko muy la muy topp lam koy jural mooy ak génn diine ndax ndànk-ndànk la koy yóbbu muy arrière di arrière di arrière ba jéggi rëdd woon ak faf génn lislaam moo tax mu ne ko fa taxruja min al islaam borom bi nee na afa raayta man ittaxada ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa xatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi gishaawa nee na ki jël bànneexam def ko mu nekk yàllaam ki jël bànneexam def ko mu nekk yàllaam xone bànneex baa koy digal muy def moo koy tere muy bàyyi nee na kooku réer na doonte daa fees dell xam-xam réer na kooko yàlla dafa tampe ab xolam tàmpe ab déggam ba duutu mën a dégg dëgg ab xolam ba duutu mën a takk takk dëgg ab gisam mu muur ko ba du mën a gisati dëgg nga gis ku yor xam-xam bu baree bare bari nga xam ne tey téere boo ko indil mën na koo tëral jàngal la ko boo demee sax mokkal na alxuraan waaye dëgg moom da koo jël teg ko fële jël tànkam teg ci kooka lan la topp bànneexam dafa topp bànneexu bakkanam loolu la la imaam bi di tere foofu te alxuraan moo la ko jëkk a tere ndax li tax nit ki warta jéem a topp bànneex moo di diine ji dafa leer moo tax mu teg ci mu ne faqad bayyana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama li ummatihi assunnata nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeralal na xeetam wi sunna wa awdaxaha mu biral ko li asxaabihi ñeel saxaabaam ya kon sunna nga xam ne mooy lislaam nam la ko waxe woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jottali na ko amut lenn lu mu bàyyi ci diine ji loo xam ne leeralu ko door fee jóge moo tax képp koo xam ne bàyyi na texte wan ko gannaaw amatul sukkandikukaay lu dul bànneex képp ku bàyyi texte bànneex doo ngay mën a topp texte mooy alquran mooy sunna borom bi nee na qad bayyana al ayaati li qawmin yuqinuun li ma ta leeral lépp sunu borom tabaraka wa taala leeral na ko ci alquranam ak ci làmmiñu ab yonentam alayhi salaatu wasalaam salmaan alfarisi radiallahu anhu nee na kenn ci mushrikoon yi daa ñëw xadis bi mi ngi ci saxiixu muslim ne man dey dama gis ne seen àndandoo ji kim ci jublu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen di jàngal di leen jàngal ba jàngal leen sax nu ñu duggee ci wanag waaw moom loolu yéem na ko xanaa kuy jàngale mën ngaa jàngal nu ñuy julleeg nu ñuy wooreeg nu ñuy keeg waaye topp nit ka ba dugg ca wana wa di faj aajoom mu ne la booy def dugal defal nii boo demee defal nii defal nii bi mu ko waxee salmaan nee na ma ne ko ajal innahu nahaana an yastanjiya ahaduna bi yaminihi aw yastaqbila alqibla uhu kay moom kay teren àgg na ci tereenu ne dem bay faj aajoom bay raxasu bu mu jëfandikoo loxo ndey jooram kon na jëfandikoo loxo càmmoñam waaye bu mu jublu qibla itam bu mu ko woon itam gannaaw yëmut ca loolu waaye jàngal na ko yeneen yu bare bare bare tànk booy jiital ak booy génn ban tànk ngay jiital ak bala dugg ci biir looy wax ak boo génnee ba noppi looy wax ak yooyu yëpp jàngal na leen ko loolu loo ci jànge yow jullit bi yàlla may tawfiq te yorum xel di xalaat mooy diine ju ñëw di jàngale ba di la jàngal nooy duggee ci wanag ak boo duggee ci wanag noo fay def ak boo génnee ba noppi looy wax diine jooju bàyyiwul dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul lu muy nëbb lépp lu wàcc ci moom jottali na ko xam nga ne kay jàngal jàngal ba àgg ci ne booy dugg ci wanag wi jiitalal sa tànkub càmmooñ booy génn jiitalal sa tànk wi ndey joor booy dugg bala ngaa dugg neel nàngam boo génnee ba noppi nel nangam kooku du bàyyi mbiri pas-pas bañ koo leeral du bàyyi mbiri nu ñuy jaamoo yàlla bañ koo leeral du bàyyi nan la say jikko war a mel bañ koo leeral lépp la leeral alayhi salaatu wassalaam moo tax borom bi tabaraka wa taala ba muy wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum baatu kamaal la jëfandikoo li am kamaal mëneesatu ca dolli dara kaasu ndox bii nga duy ko ba mu fees kooku moom iktamalat bi mu ñëwee ci xéewal yi dafa ne wa atmamtu alaykum ni'mati tamaam la jëfandikoo foofu lu mat mënees na caa dolli dara moo tax xéewali sa borom yëmul fenn wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha xéewal yi moom day dolli rek fu mu toll di dolli ko yàlla nu yàlla dolli ay xéewal fii ak fa nu jëm ëllëg waaye nag diine moom baatu kamaal la jëfandikoo nga xam ne mat na kaas bi bu feesee boo ci dollee ndox ndox mi fi nekkoon mooy tuuru moomu jël palaasam loolu mooy misaalu biddaa ak sunna ki yoroon sunna ba noppi di jël ay biddaa di ca dolli sunna sa mooy tuuru ci côté yi biddaa ba toog palaasam moo tax nit nit ki day dem di dem ci loolu di dolli diine ja di tuuru di tuuru ba jeex ca kaas ba biddaa ba des fa day mujj ne lii mooy sunna lu dul moom biddaa la boo dikkee di wane sax luy nduru sunna njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ah kii daa kontar mag ñi parce que mi ngi indi loo xam ne bokkut ak leen xam nun fekk li ngeen xam daa tuuru ba loola des fa waaye la wér mooy diine ju wér ju wér je moom biddaa ba yóbbu na ko lool yi lu ama ama am solo kon diine ji bàyyiwul dara dara dara yonent bi lépp la jàngale ba mu mat sëkk dara desut amut lu ñuy jëggaani feneen amut lu nit ki indi ci diine ji naan lii maa ko participer wala dama gént ñu jox ma lii walla dama ko xalaatal saa bopp indi ko rafetlu ko kon mënees na ko rafetlu yooyu amul ci diine lislaam kenn amu ci participation topp rek yow daal jéema la dégg texte bi topp ko sa jaan wàcc lépp lu nekkul ci texte am ngaw lay ci bañ koo jëfe am ngaw lay ci bañ koo jëfe adduna li ci biiram buñ demoon ba mu yàgg ñu d'accord ñoom ñépp wala yaasu billah jël biddaa yi ne lii mooy diine yàlla baaxele yow nga mucc ca biddaa yooyee jàppal ne am ngaw lay fa sa kanam boroom ëllëg bu ñu la laajee yow lu tax li mbooloo mi nekkoon nekkoo ci woon nga daa ah, yow kat yaa yabaloonub yonent bi mu dikkee dinu jàngal lii la nu jàngaloon te boole wu ca lee jeex na woowu lay moom lay wu ko gën a dëgër amut waxoo ne woon jaamu leen seeni xel wala topp leen seeni sëriñ wala dee leen xalaat di jëfe wala su ngeen géntee jël leen yooyu yépp waxoonu ko woon da ngeen ne wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu lim nu andiloon jël nañ ko wa ma nahakum anhu fantahu lim nu tere woon bàyyi nañ ko liw lay laa li du lay lay wu dëgër a dëgër a dëgër la sax wa awdaxaha mu leeral ko li asxaabihi ñeel saxaabaam yi wa hum aljamaa ñoom ñooy mbooloo ma baat bi itteel na lool al imaam al barbahaari ngir ñu xam ne aljamaa mooy saxaaba yi ak ñee ñu jàngal ak ñeleen leen nangoo roy kon aljamaa manhaj la mu teg cee ne wahum assawaadul azam wahum ñoom assawaadu ñooy mbooloo ma al azam ma di gën a màgg ma di gën a azama bi foofu muy màggaay bi ndax màggaayub lim la wala dañoo gën a màgg ci seeni qualité déedéet du màggaayub lim ñi gën a baax gënuñoo bari ñi gën a baax gënuñoo bari waaye dañoo gën a màgg fa yàlla ñoo gën a màgg danga ne diw sàngam mi moo gën a màgg diw sàngam fa yàlla ndax moo gën a jàpp ci alquran ak sunna kon bu ñu ne asawaadul azam mbooloo ma gën a màgg loola ci melokaan ahlu sunna wal jamaa ci la bokk yonente bi alayhi salaatu def ko wax ci xadis boo xam ne xadis bu wér la ma ngi ci sunanu tirmisi ak yeneen i téere sax mu ne in allaha laa yajmau ummati ala dalaala nee na yàlla du dajale sama xeet wi ci ak réer maanaam ñëpp àddandoo réer nag ba kenn duutu nekk siraatul mustaqim ne déedéet loolu moom yàlla na towuma ko faawu nag dana am ñu fi des mooy xadiisu la tasaalu taaifatu min ummati ala alxaq faaw dana am ñu fi des ñoo xam dañuy jàpp ci dëgg moo tax ma inna allaha la yajmau ummati ala dalala teg ci ne wa ma aljamaa jamaa loxo bi yàlla dafa ànd ak mbooloo ma aljamaa mooy ñan ndax mooy ña gën a bari mu teg ci ne fattabiu assawaad al azam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay wax de fattabiu topp leen assawaada mbooloo ma al azam ñu gën a màgg waxul ñu gën a bari noon na ne al akthar mu ne woon assawaadul akthar moom kon dañuy daal di xam ne kat kon fu mbooloo ma baree rek kon koy bu dem dugg ci seen biir waaye déedéet walakin akthar naasi ci alquran foo ko fekk la cay tegu du jëm kër laa yashkuruun ak yu mel noonu rek moo ciy tegu fattabiu assawaad al azam teg ci ne wa man shadda ku beru shadda fi naar nee ku beru da nga beru ci biir sawara mbooloo ngoog moo xam ne ku leen beru woon leen gannaaw yoon wa nga jëm yoonu sawara la waliyaasu billah sooy boo teel a wàññi ko yàlla yàlla boole ci assawaadul azam moo tax bi mu ne wahumul jamaa wahum sawaadul azam da cee teg nag firil la sawaadul azam mooy lan moom al imaamul barbahaari mu ne wa sawaadul azam alxaqu wa ahluhu nee na assawaadul mbooloo ma gën a màgg fa yàlla mooy alxaqu dëgg wa ahluhu ak ñooñ dëgg ñooñu ñu gën bu doon ñaari nit wala kenn nit sax ñoom ñooy assawaadul azam comme na nga ko jànge woon ci la weesu mu teg ca fa man xaalafa ku juuyoo asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku juuyoo ak saxaabay yonent bi fii shay'in ci dara min amri diini ci mbirum diine faqad kafar nee na weddi na yàlla hmm? wax ju diis la ku juyoog saxaaba yi dara ci mbirum diine nee na ab yéefar nga loolu nag aw déggin la am moo tax immatu salaf seen téere yi bokkul ci téere yi ngay liir rekk di dem maanaam ku ñëw di ko liir nii man nga gis boroom ngër yi nga xam ne sax dañoo nekk ci ngërum fiq am tomb boo xam ne ña nga ciy jaamoo yàlla boo xam ne wóor na leen yonent bi jaamoowul woon nii yàlla ak i saxaabaam nga daal di koy takfiir ni kon ab yéefar la ndax juyoon ak saxaaba te li imam barah baraar yi nee na ku juyoog yi ci mbirum diine génn nga diine ji masalan kuy julli di ay loxoom yonent bi julleewul noonu saxaaba yi julleewuñ waaye nag ay matu salaf nag takfiiruñ kenn ci loolu nag waxuñu ne kuy langal sa loxo ci julli da nga génn diine ànd ak ne loolu juuyoog saxaaba yi la la shakk fi dalik kon lan la bëgg a wax mooy kéefër gi muy wax benn mu nekk kéefër gu mag duy génne nit ki diine wala kéefër gu ndaw goo xam ne bakkaar bu mag la waaye du génne nit ki diine yaar yooyu rekk ma fi nekk lu ci nekk kéefër la tudd su fekkee ne dafa juuyoog saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci masala yoo xam ne képp ku ca juuyoo daf lay génne diine ji ku ko def génn nga diine ji jaamu lu dul yàlla tàllal say loxo di ñaan ku dul yàlla wakkiirlu ci ku dul yàlla yooyu yëpp ay jaamu yàlla la yoo xam kenn du ko defal keneen ku yàlla shirk la yu mel noona moo tax muy wax su fekkee nag masala ma dafa bokk ci masailul kufril asgar nga xam ne masala yi kéefër gu àggul ci kéefër ga lay génne la parce que masala yu bari kéefër la sibaabul muslimi fusuqun wa qitaaluhu kufrun saaga ab jullit ak caay-caay la waaye ne xeex ak moom nag nee na kéefër la yonent bi sallallahu alayhi wa mooy wax waaw ndax jullit yi suñ xeexee dañu daal di génn lislaam ñoom ñëpp ñu ne ay yéefar lañ ànd ak yonent bi nee na kufrun kufru ba mu ci jublu mooy kufrun doona kufru kufru goo xam ne génnewul nit ki lislaam ndax wóor na ne ay jullit mën nañoo xeex ba noppi nekk ay jullit bi dalil wa in taifataani min almuminina qtatalu fa aslixu baynahuma su fekkee ne ñaari korel ci jullit yi gëm yàlla ñu ngi xeex nangeen leen àtte defar seen diggante mi minal mu'miniina la wax ba noppi ne iqtataloo maanaam ñu gëm yàlla lañ ba noppi di xeex kon xeex génnewul nit ki lislaam kon bu yonente bi ne wa qitaaluhu kufrun xeex akub jullit kéefar la mooy kéefar gi nekk bàkkaar bu mag loolu nag ab xam-xam bu ñuy jàng ba xam ko la xam lan mooy façon kéefar bi nga xam ne ku ko def génn nga lislaam ak kéefar gi nga xam ne ku ko def gàddu nga bàkkaar bu mag lee dañ koy tudde al kufrul muxrij min al milla muy kéefar guy génne nit ki lislaam li ci des kufrun doona kufr lañ koy tudde ku kéefar gu àggul ca kéefar gu mag kon lii mu wax lu am solo la waaye lu mat dégg la bul ñëw rek gàddu ko nga ne ku juyoog saxaaba yi ci dara génn nga diine lislaam del si waatal ci texte bi nee na faman xaalafa asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi waalihi wa ku juyoog saxaaba yonent bi fi cheyin ci dara min amri diini ci mbirum diine faqad kafara kooku tabbi na ci kéefër ban façon kéefër benn muy kéefër gu mag wala muy kéefër gu ndaw leer na de buñ bëggee gàttal li jot ñëw ci jataay bi نلاحظ حرص علماء السلف على الدعاء بالرحمة لطلابهم ولمن يقرأ كتبهم fi mu tàmbalee rek mooy i'lam rahimakallah loolu dañ koy faral di gis lool ci téere as-salafu saalix xamal yal na la yàlla yërëm déglul yal na la yàlla yërëm ñaanuk yërmaande googi ñuy ñaanal seeni taalube ak ñi nga xam ne ñooy jàng seeni téere day wone ñoom seen yërmande ci nit ñi day wone seen yërmande ci nit ñi ndax yërmande dafa bokk ci ñi nga xam ne daa war a nekk ci xol yi yarhamu man fi l ardi yarhamkum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf ñi ci kaw dañ leen yërëm sallaaw ñi nga xam ne dañoo doon nooni sunna suba ngoon ñi wax di ci di sànni sunna di sànni seeni xeer ci ahlu sunna lu leen neex ñu wax boo leen seetloo dëgg-dëgg yërmaande nga leen war a ëmbal ak di leen ñaanal foo xam ne sax fekke wuñ ko ndax yàlla di leen ku sañoon dañuy jaar ca yoonu siraatul mustaqim ndax ëllëg ñu mën a tàbbi ajana comme ñépp ki lay soññi naan waxtu julli jot na kaay nu ki la naan mbokk lii day mat naa wattandi ko ndax bokkaale la kaay lii mooy tawxiid mbokk lii mat naa wattandiko ndax biddaa la lii mooy sunna boo xamee dëgg dëgg dëgg kooku mooy sa mbokk kooku mooy sa mbokk mi ngi lay ñot di di la jëme ci loo xam ne boo ko déggalee ëllëg bu ngeen nekkee ci jannatin tajri min tahtiha al anhaar da ne kële day gannaaw yàlla moo ma li ca la ma nekkoon kon booy saagaaka xasteeka defe moom yërmaande la la ëmbal comme docteur bi faj koo xam ne xel mi daa matut mën nay dégg ay saaga mën nay mën na ko dóor sax nag léeg-léeg yooyu nga gis ku ñu yeew ndax man koo pikir yooyu yëpp da ciy am waaye teewul yor yërmande ji ak yéene ko mu wér lool la docteur bi yor wootekat bi noonu la mel moo tax ulama salaf yor yërmande jooju da doon feeñ di feeñ ba ci li ñuy bind sax bu ñu waxee ne rahimakallah yàlla na la yàlla yërëm yàlla na yàlla boole yërëm noonu ñëpp ñaareel ba ann diin al islaami mabniyun ala alnassi la ala al aaraai wal afkaari wal axlaami wal xawaatir diine lislaam kon diine la ju tegu ci texte texte alquran texte sunna texte sunna ñëw di leeral texte alquran soo leen boole ñoom ñaar rek borom bi tabaraka wa taala mën na laa won asiraatul mustaqim waaye nekkul diine joo xam ne daa tegu ci ay xalaat ñi daan ñi ñooy penseurs lislaam yi loolu amut lislaam amul ñoo xam ne ay penseur la ñuy xalaat di génne ci seen bopp di indi muy doon diine loolu amut xanaa kay xalaat jii ma dégg texte bi wala ñii naan dañoo ay géntkat lañ yoo ne luñ gis rek day dikk nga xëy ne waa dëkk bépp nañ rendi ay ganaar fekk boo demee da nga am ay poulailler bëgg nit ñi jënd ci yooyu yëpp day am nga gis ku wàcceeb ceeb na kenn ku nekk nanga boo xëyee na nga jënd ñaa nangami kiloy ceeb saraxe ko fekk boo demee ab kotaam ca ceeb ba la bëgg mu jar gént di su ci jële diine wala ñuy santaane ñu naan dañ koy taamim ñëpp ci nit ñi ñu di ko jëfe toogit ba mu yàgg nga xalaat wala dara xëy xëy teg ko ni lii ci diine ji la bokk loolu mooy sànq diine ñetteel ba man arada an alxujaji alsharciya waqaa fi almaxdurat almudilla képp ko won gannaaw lay sharia danga da tàbbi ci réer lay sharia yi mooy lay yi jóge ci biir alquran ak sunna muy dalil yi nga xam ne moom la sama borom tabaraka wa taala wàcc raabian yi nga xam ne moom lañuy ñuy topp te tudde ko ngëri ahlu sunna waljamaa te yee ci gën a fés nekk yenti ngër yooyu ngeen xam ngiru abu xanifa ngiru malik ngiru shafii ngirum ahmad rahmatullahi alayhim ajmain ànd ak ne ngir yi du yent yooyu dong boromi xam-xam yu mag ñu toll ni ñoom ay xam-xam am nañ borom ay ngir ñoom itam te nekk ci biir sunna ngir yooyu yëpp taxawaayu ahlu sunna wal ci ngir yooyu yi du mooy jël menn ngir ni mii lu ci nekk diine la lu ci nekkul du diine déedéet boobu taxawaay baaxut sànni ngir yépp ne am ngir baaxut déedéet loolu itam du diine kon nu nuy def al axdu bi ma kitaaba wa sunna lépp lu ci nekk te dëppoog alxuraan ak sunna ñu jël ko lépp lu ci nekk lu juyoog alxuraan wala mu juyoog sunna ñu bàyyi ko fa noonu rek imaam ya nag nga xam ne ay imaami sunna lañ soo leen di ñaanal foo toll nga di leen ñaanal ndax yiw wu rëy rëy lañ indil jullit ñi ci firi lislaam rawatina firi fiq ba nit ñi mën koo xam foofee liggéey nañ fa liggéey bu rëy jàngal ay nit yar leen digal leen ñu tasaare diine ji kon ñooñu rahimahumullahu ajmain waaye nag doonu ñu ñoo xam ne luñ indi lu ne dañuy wax ne dañ koy jël mu kay lu bare baree bari ci liñ indi day dëppoo na ak alxuraan ak sunna waaye léeg-léeg nga dem cim ngir nag fekk ci yoo xam ne day wuteek alquran ak sunna mën naa jóge ci boroom ngir ma léeg-léeg loolu lu néew la nag waaye nag ña nekk ca biir ngir ma nag doon ay ansaar ci biir ngir ma tàbbisi ca ci ñoom lay gën a faral di jóge li ñu tudde fanatisme it ci ñoom lay faral di gën a jóge waaye imaam yi ci seen bopp kenn woote ci woon ne man saam ngir mooy nangam ma kenn mun laa indil wone ne Eh, Abu Hanifa da doon fonde am ngir ne saam ngére ngi ku ci dugg daal ngay bokk si ci mbooloo mi wala Malik wala Shafi wala Ahmad déedéet ay nit ñu doon jàngale lañ comme nii seen taalibe di leen déglu di jëlee ci ñoom bi noppi ñoom it ñuy jàngale daal di askanoo ci seen imam ba leen doon jàngal waaye loolu warta firi ne ñii dañuy yem ci seenum ngir képp dootuñu jariñu ci imam yi ci des soo ko defee sab xam-xam dana gàtt lool loolu mooy dar boroom xam yi nga xam ne dañoo jëm ci mennum ngir képp wax dëgg yàlla seeni xam-xam ni ko ibnu abdul bar di waxee maanaam ay ay géej yoo xam ne yenti géej la wala juróomi géej wala fukki géej genn gu ci nekk am ay jën su fekkee boo xëyee rëbbi fii bu ëllëgee nga rëbbi fee bu ëllëgee nga rëbbi fee yaay gën a bari jën ki nuur ci genn géej ne man lu géej gi amul soxlawuma ko noonu la ko misaale juróomeel ba laa yuxiitu bi ilmi shariati gayrullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku xam xam-xamu sharia lépp ku dul yàllaa ko yonentam xam-xamu sharia géej la kenn munta xam lépp lu dul yàlla akub yonentam la ngay jariñu ca loola yow mooy kon foo toll kuy jàng nga war a doon foo toll kuy jàng nga war a doon ak taalibe buy sàkku xam-xam di dolli ko xam-xam ndax amul fooy àgg ba ne man léegi matal naa xam naa sharia léegi wéer naa sama àlloo soo ko defee rek yaa ngay yaa bëgg a réer nag ndax xam-xam moom benn muy yokk wala muy wàññi rek waaye du taxaw xam-xamu sharia du taxaw dem ba mu yàgg nga ne niiw bii fi laa bëgg a taxaw yemale ko foofu nga xam ne li ma xamoon lépp dama koy xam dara duuti ci dolliku waaye dara duuti ci wàññiku déedéet dara kay di cay wàññiku moom bu dara dolliku rek dara wàññiku moo ànd ak ne ak lu yàgg-yàgg doo peeg lépp waaye lu ca gën a bari day gën a baax al imam malik nekk na ci sukuraat ndongaam ñëw mu déey ko ne ko demal ma ca téere yi nekk fa li nga xoolal ma masala sàngam ci miraas ñaar ñooñu suñ dajee nangam ak nangam ak kan moo ci yiir ka ca des imaam fii nga toll ni di laaj masalam xam-xam mu ne ko ma dajeeg sama xam ko moo ma gënal ma dajeeg sama ñàkk koo xam noonu la xam-xam demee ba ca tegu anna sunnata waxyun min allahi li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam sunna kon waxyu la wu jóge ci sama borom tabaraka wa taala ñëw ci ab yonentam ba ca tegu ann itibaa alhawa mudillun an sabilillah topp bànneex dafay réeral nit ki ba du jaarati ci yoonu yàlla wa huwa axtaru min itibaaci shahawaat topp bànneex day yóbbe nit ki mu tàbbi ci ay shubuhaat ci ay lënt lay tàbbi shubha bu ñëwee lënt ci diine la lay génne loolu moo gën a garaaw ki topp shahwa boo xam ne da koy dugal ci ay mooy yàlla dañuy wax ne bàkkaar yépp ak musiba yépp ci ñaari source lay génne ashubuhaat wa shahawaat shubuhaat yi mooy lënt yi shahawaat yi mooy bànneexi bakkan yi lënt yi ñooy génne nit ki ci diine di ko sikki sàkkaloo ba duutu gëm waliyaasu waaye shahawaat yi ñooy xëccoog moom ba jëre ko ci li ñuy wax listiqaama dugal ko ci doon ab moykatub yàlla loolu mooy bànneexi mooy yàlla yu bët mooy yàlla yu làmmiñ mooy yàlla ay jëf ak yooyu ci shahawaat yi lay jóge ba ca tegu ann rasul alayhi salaatu wasalaam lam yaktum shay'an mimma umira bi tabligihi yonent bi nëbbul dara dara dara ci liñ ko digal mu jottali kon diine lépp agsi na ku dem bay jàngale lay xew ci wanag ak nooy def nooy dugg ci wanag waak nooy génneeg nooy dugg ci jàkka jaak nooy génneeg boo dajeeg nit looy wax ak moom ak yooyu kooku bàyyiwul dara ci diine jëriñoo nañ ci dars bi ann sawaad al azam laysa mabnaahu ala al adad bal ala al manhaj al masluuk kon jëriñoo nañ ci bind bi ne asawaadul azam muñ ko waxee mbooloo mu màgg moom yi bul ko firee mbooloo mu bari waaye ñu màgg lañ ñu am daraja lañ kon kooku ab lim taxu ko jog waaye qualité ba moo ko tax a jóg ak ngir ma nga xam ne moom lañ soobu moo tax ñu nekk assawaadul azam mi ngi mel ne rek aljamaa fukkeel ba daruratu fahmi ibarati salaf xata la nuxammilaha ma la tataxammaluhu fa naqaau fi takfir lu munta ñàkk la lu munta ñàkk la téerey boroom xam-xam yu mag yii nga xam ne salafu saalih suñ ko dee jàng ñuy bind ci pas-pas faaw nga jànge ko ci nit doonut lu ñuy liir lu ko mooy da nga ci dajeeg ay expression wala ay terme yoo xam ne da ko firee loo xam ne bokkul ak la boroom di wax ba noppi sukkandiku ca loola benn nga yéefarloo ay nit wala nga jóg am ay décision yooyu jël yoo xam ne la boroom xam-xam bay wax ak la ngay wax yow mu ngi mel ne penku ak sow waxut loola yaa dégg lu muy wax kon faw téere yu mel nii des koy jànge ci doomu aadama joo xam ne jànge na ko ci doomu aadama kooko jànge ko ci keneen boroom xam-xam ba nam àggee ci borom mooy tax nga xam lañ bëgg a wax loolu mooy li nga xam ne moom lañ tënkoon ci boobu jataay di ñaan borom bi tabaraka wa mu jariñ lu ci te defal ñu tawfiq kon ba ñu daje ca jataay bi ñëw ci weer wa ca des incha allah ñaari fan yi dañ koo tëkkal tënk euh, dajale ngir ay yitte waaye duñ fàtte ne programme bi ba tey mooy ñaareelu talaata ak ñetteel defe naa ne noonu la minute yi ci des incha allah